internationale. Sénéinfo International. abonné leen ci suñu chaîne YouTube yi door saa su nekk ay xibaar yu wér te wóor ci réew mi ci bitim réew. Sénéinfo. Internautes de Sénéinfo.net et Sénéinfo International, bonsoir, bienvenue au résumé de l'actualité de ce lundi 7 mars 2022. D'abord, l'actualité nationale. Un violent incendie s'est déclaré ce lundi au marché salle des ventes sur l'avenue Lamine Gueye au centre de Dakar. Même si l'origine du sinistre n'est pas encore déterminée, il ressort des témoignages que les dégâts matériels sont énormes. La révision exceptionnelle des listes électorales pour les élections législatives du 31 juillet 2022 a démarré ce lundi Sur l'ensemble du territoire national, les Sénégalais non encore inscrits peuvent se rendre dans les commissions administratives qui, seront, qui sont instituées pour l'occasion. Les électeurs qui souhaitent modifier leurs inscriptions, changer de statut militaire, paramilitaire ou civil ou bien se faire radier des listes électorales peuvent également aller vers ces commissions. En Afrique, un drame est survenu en Côte d'Ivoire où quatre personnes, dont deux enfants, sont mortes dans l'effondrement d'un immeuble à Abidjan dans la nuit de dimanche à lundi. Ces victimes vivaient dans un immeuble de quatre étages qui s'est écroulé un peu après minuit dans le quartier dengrais Une trentaine de personnes ont été évacuées, dont 13 ont été hospitalisées. Les recherches se poursuivaient ce lundi pour sauver des personnes coincées dans les décombres. Sur l'international, au moins 13 personnes sont mortes ce lundi en Ukraine dans des bombardements qui ont touché une boulangerie industrielle à Makariv. À une cinquantaine de kilomètres de l'ouest de Kiev, ont indiqué les services de secours ukrainiens. Dans un message sur Telegram, les services ont indiqué qu'environ 30 personnes se trouvaient dans le périmètre de la boulangerie au moment des bombardements. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.